asalaamaaleykum man la Diaw Dine Amadou Baxaw Diaw di kilifa aada ci waalo e, nekk Samboor bëgg lépp la nga xam ni caado wolof la doon waxtaan ak yenn nag ci benn mbir ci benn wax mu di senegal yu bare booleen leen laajee ak ñenn ñu bare neenu sëñ Touba yenn yàlla taasu ci leeram taasuñu ci barkeem ñu bare neenu Cheikh Modou Bamba Mbàkke ci boppam ay cosaanam boo ko seexee teetee pël la man na ci sama xam-xam ma bëggoon tontu ñooñu ne leen ah man de ci sama yaakaar ak xam-xam wolof la ma teg ko ci lii mooy que wolof yi seen bopp seen aada yaa ngay bokk ci seen askan ñi ngi lay natte ci seen askan ci sa néegu ndey ci sa tiim la ko séeréer di wooyee wolof di ko wax miin wala di ko xeet wolof yi da ngay dégg ñun la Lat Joor Ngoone Latiir géej ba wolof ci boppam pour mu identifier la dalay lay identifier ci sa néegu ndey Cheikh Ahmadou Bamba Mbàkke nag moom ci boppam dafa am néeg bu mu bokkoon ci biir Kajoor ak biir Bawal ak biir Jolof mu nekk néeg bu rëy néeg boobu nan la tuddee mooy néegu gonjoox néegu gonjoox boobu nag boo xoolee sëñ bu mag bi ñan la ko bokkal ca ngay xam ni kon mooy mbokk réew ma yëpp sëñ bu mag moo bokk ak néeg gànke la mu du xuréeje nga xam ne mook Lat Joor a bokk benn baay doomu baayu Lat Joor ak sëñ bi ñu koy wax gànke la mu du xuréeje ñoo bokk benn néeg sëñ bi ci boppam mook medun saa xewar bu jur baayu Lat Joor medun saa xewar bu jur baayu Lat Joor ak néeg ak sëñ bi ñoo bokk benn néeg ñu ko néegu gonjox Alburi Njaay buur ba Jolof jabaram bu doon wax Gañsiri Jóob mu am ci Siidi Gañsiri Siidi Gañsiri boobu moog sëñ bu mag bi ñoo bokk benn néeg ah yow nag sa néegu ndey ci biir Kajoor ak Jolof kenn ki sa néegu ndey Alburi denc ko kenn ki sa néegu ndey doon wujjeeg yaayu Lat Joor kenn ki sa néegu ndey Médoune Saaxewar ku jur baayu Lat Joor bokk ci kon nag yaa nga ca digg buuru kajoor ya yaa ngi ca digg damel yaa ngi ca digg biir jolof kon nag yow sa néeg mu nga ci digg kajoor ak bawol kon foofu nga bokk ndax néegu ndey dafa am solo ndax tey ji boo nee ma sëñ Mountakha Mbacké man wolof bi ba dee da koy jaarale ci arabisant dañuy wax sëñ Moustapha Mbacké Mountakha Mbacké Ibn Bachir ibnu Cheikh du Bamba Mbacke mais man dama lay wax ne sëñ Mountakha Mbacke wëgëj ba ndax sëñ Mountakha Mbacke néegu wëgëj la bokk. ma ni la sëñ Saliou Mbacke awil ba ndax néegu awil la bokk ma ni la sëñ Abdoul Ahad Mbacke awil ba néegu awil la bokk. nga ni moom sëñ Mamadou Moustapha Mbacke man la sëñ Mamadou Moustapha Mbacke seey ba sëñ Moustapha Mbacke moog Alboury Diaye Bourba Jolof ñoo bokk néeg donc ngeen man xam ni ki wolof ki néeg ngay bokk ngeen ñu ma ah wante Mbacke ba ngay dégg bi bala woon man leen déedéet mbakke bi du baax ndax santu mbàkke sant la bu yàgg ci biir Tekruur nee nunu askan bu ñuy wax jawoogoo yi ñoo njëkk ñëw ci Tekruur te mbàkke ci la bokkoon jaw bokk ca ndaw bokk ca lëkkoor bokk ca màngaan bokk ca ay sant ya nga xam ne yu tumu la ñu ngi woon biir Fuuta ba leen pël yi génnee foofu ca la ñoo sant yooyu wàcc ñëw Jolof ak Saalum ba léegi sant yooyu daa leen fekk ay lëkkoor fleur mangaan sewaan sant yooyu ñi ngi diggante mbakke ñi ngi diggante kon Jolof ñi ngi diggante ñaani ñi diggante Fuuta ñi ngi diggante Saalum donc sant wolof bu yàgg la sant wolof boobu nag ci boppam baa koy natt sax nga seet kan mooy kalam buuru nambandiiru ba nga xam ne moo mujj ci buuru nambandiiru yi ñu koy wax jarmeew buuru nambandiiru bu mujj bi ñu koy wax Waly Ndaw yaayam mberu Mbàkke la tudde Waly Ndaw 1457 la ko cukli jiglaan rey moo doon buuru Namaniru Namaniru mooy wetu ñaani mi ngi tuddoon Waali Ndaw ndeyam tudde mberu Mbàkke kon mberu Mbàkke yàgg na Waali mberu Mbàkke Ndaw te ngeen xool ni kal bi ndaw foo ko gis rek kalam mooy Mbàkke or kal foo ko gis mooy que ñaari fami yu dëkkaale woon te yàgg donc ndaw ak Mbàkke duñu yàgg beneen bee tam nga xool ci aada wolof ngay gis ni góor gu nekk sa état civil du ñuy jox la tur dàkkante la sa waajur bu jigéen ngeen seet ni waajur bu góor Momar Anta Sali la waajuram bu jigéen nu ko dàkkantel maamam Balla ay sa buri waajuram bu jigéen la maamam Mamadou Aram maa Aram Mbàkke maa Aram Ñang lu ko dàkkantel loolu day wane ni système matrilinéaire wolof yi nga xam ne néegu ndey nu ma amoon doole ci wolof yi tukulóor amu ko bu doon tukulóor la du ñuy wax rek Cheikh Ahmadou Bamba Momar Momar Ball Ball maa maram mais duñ ci def turu jigéen yi ndax ñoom du ñuy rek tur yi di ci tegle góor donc aada wolof la nekkoon ma war nag ni mi ngi gane àddina ci biir dëkk wolof yi ba mu ganee àddina ci dëkk wolof yi comme aada wolof yi lu ñuy boo ganee àddina war jàngal xuraan du lay yóbbu sa néegu ndey nijaayu yaayam sëriñ Mbàkke Buso ca Jolof nijaayu yaayam nga xam ne ñoo bokk néegu gonjox foofu lu ko yóbbu mu jàngi baayam jàngalu ko ba nijaayu yaayam génne àddina ñu yóbbu ko ci nijaayam lenqe Mamadou Bousso nga xam ni ne marabu guerrier la woon ñu yóbbu ko mu jàng fi donc njàngam fondamental yu njëkk yi néegu ndeyam nu ko jàngale comme nu aada wolof def aada wolof sa nijaay